salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum képp ki nga xam ne yaa ngi mooy stand El Vision Médias nee naa la saa su ne rek nii laa koy defee tey nag ngeen di ànd ak sister Zeyna la puissante macha may bi fekk fi ay góor ñu baax si ay soxna yu baax euh, di def ay bendal yu doy naa euh, bi nuyu naa la. waaye yaa ngi am jàmm. ñu sant yàlla bu baax a baax. tey ñoo fekk la ci dëkk bu sell bi macha allah nga nekk ci waañ bi depuis suba ba tey euh, tey su ma doon laaj lan nga yëg si bés bi ana lan nga may wax. waaw sant ak gërëm rek xam nga bis bi lii la laaj bernde xam nga ñu ànd ko suñu yaay Adja Fat Diallo xam nga gunge ko si bis bi mu ñëw def li yàgg na ko di def xam nga mais ren dafa gën ala dawme waaw nee naa ko mbir amul tànki ginnaaw tànki kanam la yaa ngi dégg bon di sant di gërëm lii rek ndagam si suba gi ni la mel bëgg naa xam ngoon gi tamit nan lay wàccee la ilaha illallah bàyyi ba ñu lal table yaa ngone ba taxaw xamul table yaa ngone xamoo ci biir see bëri nga xool incha allah ko mbay ko di mbay mu dal di am mbay ko gàntal ñu xañ ko ko mbay xaw soo um nga lambi ji mbay moo ëpp lambi ji ñu maam xalifa moo ëpp lambi ji ñu maam xalifa moo ëpp lambi ji ñu maam xalifa moo ëpp lambi ji ate ñun nañu liggéeyal Seydi Mbay ñun nañu liggéeyal Seydi Mbay bar na ko liggéeyal Seydi Mbay bar na ko liggéeyal Seydi Mbay bar na ko liggéeyal Seydi Mbay ndax booy liggéeyal Seydi Mbaye bés booy da ngay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo ji aljana taalibi cheikh buy faatu dafay nelaw nelaw yowoo Si bu ñu sàggan ci Babacar ci sàggan ñu dem bala mbay nañu wayloo te toppi ko mbay ba mu jiital newul si nun mbay la ko jiital newul si nun mbay dafa ànd ak mayam yow day mbay dafa ànd ak mbayam yu day mbay si bu jiitoo ñu topp ca ñun bu nu jàqee mu jàlle noo mbay bu nu tiitee mu wàlla noo mbay ba ko woowee mu wisi la mbay bu nu jàqee mu jàlle ñoo ngi fii si kër Thion Sarr si kër Alxaaji Modou Xulle fa séene yëkkati ay kàddu ñuy ñaan mbokk yi ñëpp teewlu ah ci teewaayu sëriñ Lam Tooro si di sët si maam Cheikh Alxaaji Malick mo fas yéene yëkkati ay kàddu gannaaw bam sante yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi wax mbolom mi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh gannaaw bañu sante te yàlla di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na gannaaw ba sante yàlla di julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kàddu yu gàtt rek nee na ngi yëkkati ay kàddu yu gàtt fessel diko fessel ndax yalla mo wax ne kat ndax yalla mo wax kat ci alquran alkarim ci alquran bu tedd bobu le wala taktumu wala taktumu shahada shahada ومن يكتمها ومن يكتمها فإنه فإنه آسم آسم قلب قلب سيني بروم نينا بروم سبحانه وتعالى هو سي القرآن ني سو أمي سمبوك مباخ نينا بو أمي سمبوك مباخ مي ديف لو باخ muy def lu baax. nga xam ko. nga xam ko. te waxoo ko. te waxoo ko. suñu borom mere naa la. borom bi subhaanahu wa taala nee na mere na la. soo xamee safaan nag. nee na boo xamee safaan sa mbokk. nëbb ko nëbb ko. ndax man yàlla. nee ndax moom yàlla. maa suturaal ñëpp. maa suturaal ñëpp. kon nag bëgg naa seen yéen seen biir. kon bëgg naa yéen seen biir yéen mbokk julit yi. ngeen suturaalante. ngeen suturaalante.

ndax yàlla dafa wax ne. nee na yàlla dafa wax si Alxuraan. innal xasanaati. innal xasanaati. yuzhibna. yuzhibna. sayyi'aatihim. sayyi'aatihim. fa ulaa'ika. fa ulaa'ika. yubaddilu laaha. sayyi'aatihim. xasanaat. suñu borom nee na. nee na borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ni. yéen ñi ñëw kër coon yëpp. nee na yéen ñi ñëw kër coon yëpp. te fas yéene. màggal guddi sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te fas yéene màggal guddi sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ba ngeen déparé. ne ngeen ba ngeen déparé seen kër yi. am yéene. am yéene. ñëw ñëw fii. bokk bés bi dëkk waa dëkk bi yëpp. bokk ak bés bi waa dëkk yëpp. yàlla nee na. nee na yàlla nee na. jéego boo jéego rek. jéego bu ñu mën a jéego rek. def naa ko muy yiw. def naa ko muy yiw. boo agsee ba toog nag. boo yegsee ba teew. boo amee bakkaar. boo amee bakkaar. bakkaar ya. yàlla nee na bakkaar ya. effacé naa ko effacé naa ko. boo amoon bakkaar. boo amoon bakkaar. bakkaar yooyu. nee na bakkaar yooyee. man yàlla man yàlla. wëlbati naa la ko naa ko. defal la ko yiw. defal ko yiw. kon mbokk yi. kon mbokk yi. lu mel nii rek. lu mel nii rek. moo jara. moo jara wuti. leneen lu dul lii. leneen lu dul lii. du dara ca yàlla tawarkala kon fa tabaarakallaahu neen fa kon fa tabaarakallaahu ñu ñëw fi nag mu ñëw fii nag fekk fi suñu bopp fekk si boppam suñu bopp nag mooy kan nee na seen bopp mooy kan jëmm ji toog mooy alxaaji Modou Khoule yéen a ñu ko gën a xam nee na yéen a ko ko gën a xam bu baax ndax yéen ay bokkam ndax yéen yéen di bokkam yéen a dëkk ak moom yéen a dëkk ak moom waaye ñun waaye ñoom ñii miin nañ miin nañu lu baax lu baax ci moom tabaarkàlla dëgg la mu jëfe ko nee na mu jëfe ko waxe ko waxe ko. waaye mbaax gi yëpp. waaye mbaax gi yëpp. jiital na ci ay mbokkam. jiital na ci ay mbokkam. ndax siru arxaamakum. ndax siru arxaamakum. walaw bi salaam. walaw bi salaam. nee na mbokk alalu yàlla la yàlla nee na. mbokk dafa jooy. mbokk dafa jooy. ne dafay wàcc. ne dafay wàcc. ne dafa bañ a wàcc dafa bañ a wàcc si. suñu borom ne ko. borom bi subhaanahu wa taala ne ko. lu tax doo wàcc lu tax doo wàcc. mu ko damay bañ ku ma dog. nee na bokk ne ko damay bañ ku ma dog. moo tax yàlla. moo tax yàlla. lu nekk lu nekk. am na yonent bu mu ko dénk. am na lu mu lu nekk dénk na ko ab yonent. ba mu des bokk ba mu des bokk. ñu ko yàlla tax. nee na ñu ko borom bi lu tax. damay bañ. mu ne day bañ. ku dog bokk ku dog mbokk. ne ko mbokk. ne ko mbokk. wàccal wàccal. ku la dog képp ku la dog. man yàlla man yàlla ma dog la. nee na xam nga def-def ñun li ñu jàpp mooy def-def mooy xaalis maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu nee na richesse nee na koom-koom bi nit ñi riijoo du xaalis ñu ne ko Cheikh Alhaaji Malick richesse mooy lan lan mooy richesse. mu ne mu ne. richesse dëgg nee richesse dëgg. mooy jaamu yàlla mooy jaamu yàlla. gu yàlla nangu tabaarkal nee na leneen lu lii rek. du dara du dara. mën nga am tey xaalis bu dul jeex. nee na mën nga am tey xaalis bu dul jeex. da ko fiy bàyyi da nga ko fiy bàyyi. dee ñëw dee ñëw nga bàyyi ko fi. waaye jaamu yàlla gu yàlla nangu. waaye jaamu yàlla gu yàlla nangu. mooy sa sauvetage ëllëg. nee na te wóor nañu ni ñun ñii ñëpp dinañ faatu xamuñu kan la fan la ndaka la ak خلق الموت والحياة يلا نينا لما بند جام يي ما تي گنل لا نيك بند كدي نين لوم سي اذا جاء عجلها لا يستعيرون ساعه ولا يستعدمون kañ la fan la naka la ak nu muy ñëwé ngal la waajala sabab yow jàmbi neen ñu koy yàlla nan lañuy ñuy sam bop ifal la tafal li lu bax la defal sax sa li lu bon la la tafal bul jëf kon nak kon nak jëf yu bax jëf yu bax yi lu am solo la serigne modou serigne El Hadj Modou Khoule mii ci loolu la sax nee na Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh nee na si mujj dundam keroog keroog ba mu joxee Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour di Seydi Haaji Modou Khoudemi àllarba la 11 si takkusaan dem timis nee na moom Serigne moo ngi toog ma koy jàngal nee na mu koy jàngal. téere bu ñuy wax sulamul murid bu ñuy wax sulamul murid. Cheikh El Hadj Abdou Aziz maam Cheikh El Hadj Malick maam Cheikh Seydi Hadj Abdou Aziz. moo ko taalif moo ko taalif. ñaan na ci lu nekk nee na ñaan na ci lu nekk. feebar yi wér ak ak yu dul wér ak jabet ak ba ci kort ba ci kort yi. Cheikh El Hadj Abdou Aziz mu ngi koy ñaan si téere boobu la. nee na bu dem ba ci biir téere ba am na bayit yoo xamante ni buñ ko daan jàng dafa daa wax ni ñu baamtu قافل وأمر قافل ربنا ربنا أنوني وزاي قبلنا بدون هوني والأمن والصحة من كل ما يخشى لضل خيامي نيانا بوم يكسي قوفزي من لم تورو بول أقل تيربي غورغي دارون نيان يالا دارون نيان يالا تيميرك تيميرك نانغام أي أت أي جروك لا جوخ شيخ محمد المنصور لا محمد المنصور برم دارجي بشراكم منصور قد ولتم سرل خلافتي كن فتبارك الله ني مو جوخ كو نك لي مو كو جوخ ني بيم كوي نيانال غود فان موني كو لام تور ني موم مام شيخ حي عبد العزيز لي واخ دي غناو با شيخ سيدي محمد المنصور ديمي muni ma bul àggale téré bi né mu jaxlé te buñ fa musan aksi dafa nan loolu baamu len ko ñett yoon waye waxtu wi may wax ni né daf nan ma arrêteel téré bi te paréguma né mu jaxlé kérok muni ma si jëlal sa loxo nga tek ci sama deun jàngal ma suratu yaasin suratu mulki wa tiini bannaasi te bu ko bàyyeeti nag si àllarba ñu xëy suba alxamis mu xëy suba quatre heures et fekk ma defaral ko kafe su jullee ñaari rakk balay def lawraatam ma jox ko kafe gi ne waaye góor gi keroog naanul kafe ba huit heures Maodo si ku ñëw nuyoo marhaban rek ma nga banku rek bamu yag ne man amna fumay jaar ak mom ma ñëw rek tim ko niko ko assalamu alaykum mun ma alaykum salam maniko do mustuti café muni beurat famu tok ni ma indil bindukaay ma indi bindukaay 8h14 mo jot boba muni tawalla umuri ya ilahi wala takil إلى أحد أمري فأنت قدير فعجل سريعا يا إلهي إغاثة وأنت بحالي يا ولي قبير أتيتك ملترا كئيبا ونادما ومستغفرا بالعفو أنت جدير لا إله إلا الله ne te waxoon na ni buñ ko ñaanal gudd fan. tey mu ni yàlla. man yàlla. Abdul Aziz Dabaax ni ma soppe yonent bi. inna inna xubba nabi qaala talaxmi wa izaami wa damma duuna riyaa'i sama cofeel ci sayyiduna Muhammad man Dabaax dafa jaxasoog sama deret waaye tey tàllalu ma yonent bi loxo. ne li muy wax nii moo ko bind de mu ni yàlla yow laa tàllal loxo sama jëmm ji dama bëgg mu tuxu si ñëw ci yow yàlla yaa ma fi indi woon bu ma boolee kenn man Abdou Aziz kenn doyu ma ci sama jëmm ji ku dul yow yàlla nee na rafetal leen fii te wallaahi jëmm ji yéena ñu ko gën a xam ci loolu la nekk ndax lu baax rek lay wax ne dañ ñëwoon rek tey feddili suñu kóllëre di sant ñépp ne nii la rek lislaam benn la la gi waxoon amul tuuba tiwaawan kii wax ni kii wax ni tuuba tiwaawan ñaari dawle lanu fii dawratin tawarul wallahi kooku xamul Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Malick nee ko wax yéen ñi xam mu noppi moo di la mu xam ni fadlal ali moom ci loxoom la néewul seen dawle jiitu na tey loo bañ-bañit du fi jug waxal ba xuttiku yaa maluunu yaa xëttu xool tuubaak tiwaawan ñaseen jaamal ak cene ba kazaka laayeen wa njaasaan koo ci gis teralal ne xam nga lan mooy suñu problème ñun ne du ñun tariixa yi daan na wax ni bu leen jël tariixa yi def ko jaasi di ko xeexe ne xam nga lan mooy suñu combattre dëgg fexe ñi nekkul ci diine nga fexe ban ba ñu doon ay tiijaan ñi naan ñi ne ay murit ñi naan laayeen loolu mooy sunu combat waaye dootul ñun ñii innamal muminuuna iqwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha ne loolu suñu boroom a ko wax ne ñi ngi jéggli kàddu yi bu baax ne di santaan nag Moodu Xulle bu baax ak i soxnaam yépp ak njabootam ak ñun ñi fi teew ñëpp jotaay bi nag jotaay bu rëy la bu yàlla reconnaître la ndax lii ñu def moo gënal yàlla daje di xarabante ay bokk yu daje di waxante ñëpp bëgg yàlla nee na lii moo ma gënal man te bu boobaa malaaka yërmande ñëw fa ñu nga fa di yóbbu yu baax yi kon nag nañ sax ci lii nañ góorgóorluwaat di jaamu yàlla ne jaamu yàlla nag jullee tax julli mi ngi mel ni jëmm ci nit bopp ba dagg na suuli rek mooy julli ci nit ëllëg loolu la yàlla di régler yàlla nañ ci yàlla saxal ñu dolleewaat góorgóorlu tey jaamu yàlla. du tey la onze ankay dajeeg ajuma ji ngoon gi ngeen taxaw nii ngeen taxaw nii jàkkaarloo kii waxuma mu sant si waxuma mu bokk ci famille bi waaye mu am ngërëmu Cheikh Haya Abdou Aziz ne ngërëm bu amul rax boo xam da ko liggéey te yàlla tax sëriñ bi gërëm ko te yàlla tax waxuñu gërëm ko ci njureel waaye daf ko gërëm ci taalibe tarbiye ko wóolu ko jox ko léppam bàyyi doom yi mu jur jël kii jox ko lépp muy lam tooro si mii toog kon bu ñëwee fii toog nettali leen anniversaire la 11 ne tey jii la 11 bii la woon anniversaire bi ne gis nga Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour Babacar Sy ko jur Serigne Babacar Sy Cheikh Sidi Hadj Malick ko jur te gis ngeen Alhaaj Malick jurul kudul waliyu famille bi yëpp ay wali yu rekk ci ne ñoo xamante ni dañuy wàcce seen bopp wàcce seen bopp ba mënatuñu làqatu te xam nga yàlla ne ma ngay wax ci alxuraan naan nit koo xam ni daa bëgg a yëkkati boppam du dem fenn waaye boo wàccee sa bopp man yàlla ma tongal la sa bopp yéegal la ca kaw te kenn du ci man ñaari dërëm kii nag di sëñ Lam Tooro si noonu lay doxee dama bëgg xool ko xàmmee ko ngoon gu jafee ngi ngoon gu raara ngi ngoonu ajuma gi tombe kër coon ajuma ji sëriñ Lam Tooro si ñëw fi ñëw ci ndigal ndax gàmmo gi sëriñ Abdoul Aziz moo daan ñëwal boppam di ko teeweel boppam jàppal ko boppam tuuf ci baatin tuur fi baatin boo xamante ni ku bëgg ak ku bañ ma ngi fi te gis ngeen bu leen xeeb tey gis nga tey jii dafa garaaw waaye li muy garaaw garaaw ne dem bañ koy préparé di alxamis ji moo gën a garaaw sax ajuma ji ajuma ji ñëw tey ci ngoon heure bi julli di bëgg a jot jinne yeeg malaayika yeeg ñëpp bañ koy préparé ndax bis bi balay dellu siwaat bis bu dellu siwaat kon tey nañu rafetal suñu xol yi te jàppalante te yàlla tax te bañ ci gis len gis nga nit mënta yor boppam bay yor keneen nit dafa war a ragal yàlla mu sax ci xolam nit dafa war a dimbali nit te yàlla tax nit dafa war a bañ ree nit ngir ragal yàlla ndax yàlla ndegam télévision yi ñoo mën jël léegi tasare ko ci aduna bi ne ki ne États-Unis ak Amérique yàlla man na li ñu def ni ngondi ñu tegal ko ko Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam caméra bi jël ñep ni gaay yi am nañ sens ndax sayyid Mouhamadou Mansour da lan wax nan jàng ba am licence yorul affaire bi ñu ni ko sëñ bi lu tax mu ni sens moo dàq licence tey ku toog fi tey am nga sens wallaahi ku génn sa aajo day fajo li nga bëgg ko ak nga bañ ko tey tey sama xol dama jooy rankoñ génn waaye jooy naa ci bi te bari naa ci morom ñu jooy ci seen xol ay kilifaa ngi toog jotaay ay sëriñu murit a ngi toog jot yeneen sëriñ yëpp ñu ngi toog fii dama wax ni tey kenn ku ne jooy nga jooy xool jooy day ñaar jooy bañ lay gis nga gis ko nit ñi gis waaye sëriñ bi ba mu tuddee sëñ Abdu laa yëg rankoñam muy génn ci dënnam wallaahi lu sëñ ab def moo ko bind jag saaw bii paase damay woo dama cee barkeelu moom dafa bind ci jag saaw dafa nekk ak sëñ Abdu ba 4 di du matin nee na bu kadara jotee rek danaan indi këyit di bind di bind rek li ko gis nga jag saaw bu ko nit ñi xamoon ngéw ci ngelaw li nooyi ci bind ko ni day faj aajooy di faj seen xol di faj seen jàngoro xam nga sëñ ab luy jàngoroom lislaam bu set xol bu set wicc fa lay dóore jàngoro yi waaye jàngoro ak wér-gu-yaram nekkul ni am nga kàttan dem sam xel lëndëm gisoo dara silmaxa day ñaar ki ni womat ak kii xool am na ku ni wombat du silmaxa am na kuy xool mooy silmaxa bi nitu yàlla buy xool silmaxa ne borom bët yi gis ci la ñuy xool ci lañ koy xool waaye silmaxa buy dem daa muuru mën na gis lu sori loo xamante ni lu garaaw te soo ko seenu da ngay gëm sey bët li la gis lo xamne man nako rom xol ko mu lak safan wallahi tallahi mo tax serigne bi neen ñu téye suñ lamagne tëj seen nopi yi tëj seen bët ragal yàlla jaamu ba melni bu suba heure bi yàlla man na kenn ku ne yalla man gis nga jàng yi dem jàngi ren kan moy xalaat ni est-ce que suba heure bi na la fekk waaye ab jullit ñi mu ko wat te mun koo wat te waru koo wat kon nag nañ teg bàmmeel sunu kanam te nangoo liggéey nee sëñ Babacar Si nee na bàkkaar daal dulli wàcce wu ko de dulli wàcce wu ko de déedéet jàngal xoraan wàcce wu ko de dem ci yoon ci wàcce wu ko de xam lu koy wàcc xëri tës ubbi sa xol yéena lu baax liggéey yor say njaboot jàppale koo mën a jàpp mooy wàcc sa bàkkaar sama yaram tàng na te sëriñ Mahamadou Mansour daa doon koo xam ne dafa ma jëloon taf ma ci boppam di ma defar di ma defaral ba jël ma teg ma ci loxo sëñ Abdou Aziz Al Amin wali yu Babacar Si boo xam ne foo ko seen day ree daan naa ko wax ni ko nit ñi nit ñi mën nañ fexe ba defar ci yow waaye man nañ fexe ba yàqoo ci yow ñaatoo ya bëri na ñaataa defaroo ci moom bëri na du jeex kenn xamul ne am na ñoo xam ne dañoo taxawoon ne billaahi wallaahi dañ taxaw ni sëriñ bi dafay yàq diina ji jëmale ko sëñ Abdul Aziz billaahi wallaahi tey laa juma ña ko waxoon ñëpp dañu accident seeni bopp toj mu des benn waay mu ñëw gàmm Tiwaawan dinaa wax ak sama bàmmeel dinaa wax sama bàmmeel lii dañ tooñ sëñ Abdou dama ko bëgg a gis mu ñaanal ma ma jéggalu ko dañ koo tooñoon di wax ci moom lu tegginiwul waaye ñett ñëpp dee nañ te man de sama xel dafa dalul ma ne ko gàmm gi daa ñëw bàyyil ba nu gàmm bu sëñ bi reposé ma yóbbu la fa suba sa ora jaar ci bopp bi moo tax man ko sëñ ab waaju ko xamul mooy laal mburum baam nga ndax booy lëggéeyal sëñ bi bés booy faatu da ngay nelaw nelaw yowoo ji aljana bi cheikh buy faatu dafay nelaw ñu doxantu woon fii kër Thione Sarr ah ci gàmmu gi ñu fiy taxawal ñëwoon ah nag suñu xarit suñu soppee alxaaji Moodu ah, ñëwoon na ci gàmmu gi pour laaj tey ji gàmmu gi nan lay demee ah ay soxnaam toog nii nag doon leen laaj tey luy seen taxawaay si gàmmu gi yaay booy ñu ngi leen maa ngi leen di fay di kontaan ci gan ñi gannaaw bi ma sante yàlla di julli ci Mouhamed ñoo ngi sant Modou Khoule bu baax di ko gërëm di ko ñaanal waaw sunu taxawaay nag ci gan ñi mooy di leen jàppale ak di dab seen bànneex tey day dañuy bernde rek dañuy bernde suba ba ngoon jot lu mu laaj rek ñu joxe ko ndax Alaaji Modou Khoule dafa seetaanul jabootam seetaanul ay soxnaam seetaanul kenn lépp lu waay def rek jàmbur baag kamu jur ak jurul ñoo ci yam lépp lu waay def rek loxo mi ngi ci biir bon tay bu amé bis bi luñu ci def rek dañ koy xeeb. gam gi ren dafa gëna évoluer ndax chaque année rek dafa am lu muy dafay avancer ndax guddi mohammed kenn duko def mukk di di arrière yaa toujours fay avancer jëm kanam. toujours bo guddi gam gi rek bu né at mi moo dàq bu né da nan bi ci top mo dàq mohammed sallallahu alayhi Wasallam mom mo tollu nonu motax toujours guddi gi rek da fay gëna neex waaw ñoo ngi gan ni nanu ñëw nañu dal ci ñuy def ay bernde di joxe ba fajar di jot. incha allah macha allah kàddu yi rafet na. nuyu. maa ngi leen di fay. waaw ñu ngi leen di sant ginnaaw bu ñu santee yàlla di sant ñëpp borom kër gi moom turwee wuyu borom ndax moom ni mu mel rek noonu la gàmmoom di mel ndax moom seetaanul kenn te ñun ñii di ay soxnaam lu ñu def ci gàmmu gi dañ koy jéem a fay mais mënuñu koo fay ndax su ma géegee ñu ngi naan dafa baax dama naan leen baaxam bala moo gën a neex bu fekkoon dafa baax ñëpp di ko wax te waxuñu ko amul sens ndax lépp lu muy def rek. ci ñun la ko njëkkee bëgg njabootam bëgg doom doom dina ko tax mu xëy ba ngoon yemale wu ko ak der kon moom gàmmu li ñu def rek dañ koy jéem fay mais mënuñu koo fay ñu ngi accueillir gan ñi jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ndax ki bàyyi yitteem yëpp ñëw ci yow mënoo koo fay xam nga ne fii dafa sori gan ñi di jóge fu ne pour ñëw ñu ne ñu jéem a ndam nag seen bànneex bañ kenn xiif rek bañ kenn mer. macha allah kàddu yi rafet na. ñu gis suñu yaay Adama si ak suñu yaay Kujee Diallo ah laaj leen wax dëgg yàlla seen taxawaay si gàmm gi seen déplacement laaj leen fu ñu ak lan mooy seen tànk daal tey jii ak tey nan lañ gisee bis bi yaay Adama ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. Ah, tey da dañ lay laaj wax dëgg yàlla lan mooy sa taxawaay ci gàmm gi ak lan nga ci gàmm gi ak noo gisee gàmm gi daal. waaw gànnu gi de gannaaw bu ma santee yàlla julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di sant sama ñaari wéy di sant uh, borom kër gi di Modou Khoule di borom këru Faatu ak Marietu gàmmu gi dama fee ñëw nekk seen yaay nekk seen goro nekk seen maam nekk seen lépp kontaan nag ci ñoom di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal gàmmu gi ñu dugg yàlla nañu ci dugg ak bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin di leen ñaan lépp loo xam ne def nañ ko ci yàlla na leen yàlla may lu ko ëpp seen njort te ñu fekk ko ñun ñëpp te yàlla saxal fi jàmm tàppe xol yi yokk xéewal gi yokk wërsëg gi yokk teraang ji ndax doomu aadama di jullit jàmm rek moo xaj ci moom te jàmm mooy mbokkam jullit te nag dama lay yéene naa leen jàmm te jàmm ji ma leen yéene yàlla na ko suñu borom def bu ko defee yàlla nañu ko bokk ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla may ñu gi njaboot gi toog ba aw leen ci lépp lu ñuy def ñu wàcce leen ñu toog di jaamu yàlla te yàlla nangu seen ak jaamu yàlla yàlla na fi yàlla saxal jàmm saxal ko fépp ci Sénégal te du sëñ Ibrahima Xamad amiin jërëjëf yaay kontaan nañu ah, ñu wax ak suñu yaay Khoudia Diallo ah, yaay ba nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay. Ah, ñoo ngi lay laaj tey sa taxawaay ci gàmm gi ak fan nga jóge ak tey lan nga doon ci gàmm gi ak noo gisee gàmm gi tey. d'accord maa ngi kontaan ci question yi mu ñoo ngi jógee ba cité Mandela Fass Mbao may ma Adja Fat Diallo ñu ñëw tey ci gàmmu gi fii Kër Thione fekk si Alaaji Modou Khoule sawar lool ci ñëw fi muy tagg nag muy guddi nga xam ni daf ci tagg Mouhamed tey ñu ñëw fekk si ko fii ndax moo du nekk na nit ki nga xam ni même bu duggoon ci kàmb lebal na nit ñi teraanga ji nga xam ne bu duggoon ci kàmb sax nit ñi war nañ ko faa fekk waxuma laag nag ba muy fii rek soriwul motax ñu mobiliser wu ñun ñepp do ñoo fekk ci ko fi tay keur Thion Sar ci dëkk sanam bëgg and ak mom tagalé ko yonent bi ba mu neex machallah ci nga bëccëg bi ñi commencé nan bernde yaa ngi ñi nit ñaa kenn bañ dara lu way am rek dana ko ci def ndax euh, modu jaral na lu ne lu ne dafa baax am yëg ci nit ñi bëgg njabootam machallah ñun ay gorom lañ mais def no fonk tek mu ca moo tax fu mu fekk fu mu fu mu dem fekk ko gis nga tey jii Adja Fatou Diallo bernde yi mu def tey macha allah gis nga lim fi wàccee bàyyiwul xar bàyyiwul ganaar bàyyiwul boisson bàyyiwul jus lu ne ngi ci ngir jëmam rek ak teraanga ji mënul lebal te mënuñu koo fay ñuy jéem rek. jërëjëf yaay kontaan nañ kàddu yi rafet na waa tey ñu jaaroon kër Thione Sarr ci gàmmu gi fi am. kër Alhaji Modou Khoule ah, doon wax ak tey ay soxnaam kii yaayu soxnaam la ah, kii tamit magu soxnaam la ah bala ñu leen a bàyyi seen kàddu gu mujj ah, ñu laaj leen nan ngeen préparé gàmmu gi ak nan ngeen see berne yi tey jii. préparé ko ci jàmm rek ak yiw ak xéewal ak ngëneel xam ne yoonu yàlla lu ci waaye def perte loo ñuy ñaan yàlla dañoo ñëw rekk ngir jaamu si yàlla jàppale xale yi ak seeni waajur ndax we waajur yi ñoo tàggat xale yi ba xale yi alhamdulilahi rabil alamina dañuy ñaan daal ñëpp luy njaboot gi yóotu yàlla nañ ko jot ba dund ba aw seen pàpp ci lépp ñun daal sant yàlla rek dool di sant yàlla rek la ñuy def xéewal yeeg berndeel yëpp tabarkalla macha allah lépp doy na te joxe nañ ko si yiw ak yar ak teggin ak sutura tax loolu rek la gor di taamu ci doomu aadama te loolu la ñu gis ci ñoom ñun daal dañuy ñaan yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla barkeel alhamdulilah jërëjëf yaay boy yaay boy sa kàddu gumu juus noo préparé gàmm gi ak noo gisee benn yeeg yooyu. rek bu ca kanamee rek ñu àndandoo dem ca réception ba soobe yàlla bu guddee nag ñu daal di egg ca tànt ba ci tagg yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam tey dara du doy macha allah. jërëjëf kontaan nañ ah kàddu yi rafet na kàddu yi rafet na. mbay la ko jiital mbay dafa ànd ak mbayam yow day mbay dafa ànd ak mbayam. waaw kon bu ko defee ñu dalal suñu oustaz yi sëñ Bokar Diallo ak sëñ Xaadim ah di len laaj tay ji lan moy sen taxawa ah, ah, kan si gamu gi ak tay lu len indi tay si gamu gi ah señ bokkar ñu ngi leen nuyu. jeuf soxna si ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax sama fi tay ji nak euh ah, moy sama goro bi nga xamé ni si moy denc sama jigen di Modou khulle mo tay motax tay ji ma déplacer wu tay ji ñew fi pour téwé gamu gi ndax modu, nek na nit ko xamni ne si budul won sax sama nit jigen bi mom sunu sama kóllëre ak mom jitu na sama jigen bi rawatina nak ba nga ya ni si yalla dem na ba dogal sen diggante kon diggante bobu bon dafa nek diggante bo xamni ne si diggante bu yag la mu xew la tey jii ma Dakar ñew fekk si ko tay ji ci sa dëkkam di kër Thione sar fekk si tay ji gamu gi mu dal manam magal yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam koku mom warna na julit ndax gamu dafa nek lo xamé ni si yonent bi si bopam moko mom moom ndax kérok bamu juddé ci la lepp yu daawoon nono sax ci lañu jubo xam nga xaj ak mous bu nu démé bay fonenté janax ak ak ak ak yoy di dem bay fonenté xamani kon ki ñew gade gane si aduna nek na ko xamé ni si ku rëy la kon waaw bon bu ko défé bon amul lu gëna bis bi ci ñun ñun julit di magal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nak war na nag bépp ndaw bo xamé ni si rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxla euh sacrifier nga sacrifier sa sa bop pour mën euh magal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw. waaw jërëjëf kontaan nañu sëñ Bokar alaykum sëñ harim ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay soxna si.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 bisu mbëgt la bisu jaayante la waaye bisu fajuk aajo la itam di jiital sunu nuyoo ci ki ñu fi fekk si fii tey ci dëkk bu tedd bii di alxaaji Moodu Xulle di sunu baay di sunu soppe di sunu xarit di sunu lépp ñu ngi koy nuyuwaat bu baax di ko ziyaarawaat di ñaan sunu borom lepp lo xamne mi ngi koy bëgg ci bërepp bi rek suñu borom defal ko ci lu kawe njort ah bo ñu laajee nak ci gamu dañ ci sawara tontu lool ndax ku ne xam na ni gamu cosaan la moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ganek adna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo waral gamu ñu diko maggal سرين توبا وقنا نسخ مم سرين توبا نحن قام مدعي كأنه كنا يكوارا دف ندخ خوص الورا كخطة لمن دي في موديك جامونا كان كأنه كنا يكوارا دف دمنا بوقت تعظيمه بسنة يقودنا للجنة كأنه كنا يخرنا مم ركلي وتشادنا الجنة بقي ينتي موني في عندي te bëgg yenent bi nag ñu ngi koy jaaree tey ci bunt bi di sunu bàyyi ju tedd ji di alaaji Modou Xulle ñu ngi koy ziyaarawaat bu baax di ziyaara njabootam yépp nag di ziyaara day mbay si bu ñu topp ca ñun bu nu jàqee mu bu nu tiitee mu wàll noo mbay nan yaay bi waa kay maa ngi leen di fay bu baax yaay boo dañ la doon laaj tay ji la moy sa taxawa ci gamb gi ndax biñ fi ñëwé ba tey wax dëgg yaalla ñu ngi lay gis ah programme bi mu ngi sa loxo yaangi dem yaangi ngi ñëw yaa accueillir gan yaangi ben lu nekk yaangi ci wax dëgg yaalla yaay ñu doon la laaj tay ji lan nga ci bis bi ak fan nga ko ba ñëw fi waaw kay ma ngi sant yaalla bu baax di julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant Modou khulemi ma nekkal ak Adja Fa Diallo. xam ne kon bis bi dara laaj parce que man ñoom laa nekkal man maa yaay xale yi xanaa di kontaan ci bés bi rek di ñaanal euh, Modou Khoule yàlla may ko gudd fan yàlla wéral ko bàyyi ko ci kanamu njabootam lu mu mën ren bu defee ne yàlla man lu ko ëpp parce que bëgg na njabootam teral na leen ma wax dëgg yàlla jàppale na leen bu baax man moom maay taawam macha allah moo tax bës bi. duma solu duma summeeku damay organiser rek jox nit ñi ñu lek ñu naan dalal leen machallah salaamaaleykum soxna si ñoo ngi lay nuyu ma ngi lay fay lay jiar bu baax di la laaj tay ji lan moy say tank fi ak lan mo sa taxwa ci bisbu ak fan nga ko ba ñëw fi tay wa bismillahir rahmanir rahim ñu ngi lay delo ziar bu baax diko nangu ñaanal yalla di leen tatagal di leen dalal ngeen commencé ci bisimilah rahmaani rahim ekkalee ko ci alhamdulilah rabil alamina waaw bis bi nag boo ma ci laajee damay sawar macha allah lépp Modou Coulé la gàmm gi gàmm annuel la ñu yàgg ko fee def yàgg ko fee fekk si fi ci dëkk bi mu doon gàmm gu neex macha allah waaw ñu ngi ñaanal alaaji Modou Coulé ak ay soxnaam Adja Fat Diallo ak Adja Marietou Diop te xam ne lépp ñoom la li leen wax ne nii rek la nag waaw. Masyaallah allah masyaallah gam allah gam gi dal gam la macha allah nañ ko fi yag ñew leen fi yag fek, masyaallah. allah day bu ah wax dëgg yàlla si gaam gi waa Elvision Média ñoon si gaam gi jàpp ci ah ñu leen doon laaj te lan mooy seen taxawaay ak nan ngeen mobiliser woon pour jàppale seen papa si gàmmu gi ak tey nii ngeen àndoo doon benn en tant que ay doomu baay ah loolu lan la woon tey. waaw boo gisee loolu nag ñu ngi maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew ñëpp ci bési gàmmu bi parce que boo gisee loolu noonu am gàmmu boo bu nee gàmmu sa xel day dem si rasulillahi te moom moo gën ñëpp. yàlla moo tax kooku moo tax yàlla bind ñëpp kon kooku bu koy defal bés bii tey sa mbàpp ñëw taxaw ci keneen ko ci def du du ngeen ngi liggéeyal sa mbàpp sax da ngay def ngir rasulillahi te sa mbàpp yar nañu yar goo xamante ne si ñun ñi si ay tànkam lañ nekk moom lu dul diine dara safu ko duudu xule bu ñu fu sa mbàpp ay gàmm yu ne day ab day yabal duudu xule fen man mi dee fois mu yabal ma ay gàmm te yooyu yëpp si bés bés yu rasulillahi rek la ñuy dox ñun waaw kon nag duudu moom lu ñu nekk ay doom bàyyi nekk benn nii si sam papa la rek mom mo doxé mom mo doxal ak suñu yaay ju bax ji Adja Fat Diallo mom moo ñu yar ñu tetta ñu bañu am amul fukki ben ñu bolé ñu duggal ñu école di ñu def comme ay doom jàppale ñu ñëpp ñu moo tax ñu mëna tamanté minanté nek ben petit xulé bu xewlé da nga naan man ma xewlu du seen xulé bu xewlé da nga naan petit mo xewlu non la rek non la fa dé mais nak gam gi mom waaw ñew nañ taxaw japp ci bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waaw bo gisé sax tenue ñu sol ni dañ ko sol ni pour servir nit ñi dalal nit ñi lepp lu fi manké ñu dox lepp lu war ñu def ko ci kàttanu yalla jere jef ka de rafetna salaamaaleykum alaykum dudu ñong leen ni waaw ah, ma ngi leen fay soxna ci wa tay ji dañoo ñewon ci gàmm gi ah ñu gis sen taxaway wax deug yalla ñu mu rafetee ci bis bi ni ngeen jappalé sen papa ak ni ngeen doonee ben ak ni ngeen ak yéer gani ah ñu leen doon laaj tay wax deug yalla lool la wara ah jere jef jere jef kon question bobu sama ko laajee dama ci sawara tontu ma ngi leen dalal wa Elvision di leen jox waccu way waaw ñun nag amul ñu dul bés bii sa bésu papa moom suñu bés la ndax ñun amul ñu dul moom moo tax tey namuñu dara moom amul lu dul diine ji diine ji rek ko ñor moo tax nii lañ def suba ba léegi ñu ngi liggéey sëñ Babacar si rek tàkkusaan sëñ Babacar si ñun amul ñu lii ñun sa papa moom nee na diine ji moo ko yor boobu ñu yoree ba léegi ci diine di ñu yóbbu Tiwaawan di ñu yóbbu fune moo tax dañuy woy ci loolu ñun xooluñu feneen amuñu beneen royukaay amuñu keneen moo du xulle kese point su noonu miir bi dafa weex ñu ni ko dafa weex moom rek lañ am gàmm gi ñu koy def chaque année ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko doole ba lu mu mënoon tey benn mu mën ko déwén ay fukki fukki fukki mu ko ñu yàgg koo def ndax gàmm gàmm gi tey man damaa bëgg li tax damaa bëgg mooy sama doom ñoom Ousseynou Khoule ñoom Mor Petit xam nga ñun ñëpp jàpp ci liggéey bi sol affaire yi mu rafet mu rafet waa Vision ñëw kontaan naa ma sama pap du ma ko santati dama koy ñaanal dañ koy bàyyi yàlla rek moom duñ ko sant duñ ko kii dañ koy bàyyi yàlla rek yàlla loo xam ne def lu mu mën benn yàlla na ko mën déwén nag mbayam yu day mbay si bu salaam ah, ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yenent bi waa saatu dañu doon laaj tey jii nan nga gisee gan ak tey nan nga daalee gan ak gàmm gi noonu nga ko préparé ak lan ngay wax alaaj moo du xule seen goro ah gàmm gi nag tey dafa ala daw me waaw gamu gi tey moom neex na torop torop torop gan yaa ngi comme ni ngeen ko gisee rek teranga yi bernde yi tey daal dañoo fël-fëlaale def lu nu saf ci gàmm gi dëgg du neex ànd ak sunu mama nag Adja Fatou gis nga ni ñu def boo ñu gisee xam nan ba muy moom ah waaw gàmm gi comme ni nga ko gisee nii rek nii lay demee nag mais tey nag moom spécial gàmm la gis nga fii ñu génn suñu mama génne ñu fi man ak sama rakk ji waaw suñu goro nag moo du amuñu fayam gis nga moom nii rek lay taxawee fépp nag këram yeeg fépp nii lay taxawee foo ko fekk nii lay def dëgg du neex nii daal la ñuy dundee tamit no stress accueillir suñuy gan defar ba mu baax waaw nii la. jërëjëf Fatou kontaan nañu Mariama ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. Ah, tey dañu fee ñëwoon waa Elvision Média ah, jaaroon tey ci gàmm gi deen leen laaj lan mooy seen taxawaay en tant que moo Modou xule ak tey lan ngeen wax seen goro Modou Khoule ak nan ngeen dalalee gan yi. Euh, maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen sant seen taxawaay ba seen teewaay bi tey waaw comme nga gisee affaire bi feeñ na fi sax gàmm la boo xamante ne chaque année dañ koy def fii Kër Thione man nag c'est ma ma fii ñëw maa ngi fii door a bi nag te tey ta bi yàlla dogal ma mu nekk gàmm ju neex vraiment sama goro bi sama papa moo doxul ñoo koy organisé ak sama yaay ndax pour village bi yëpp yaay gis te gis ngeen lekk yi gis ngeen nit ñi ñëpp ñëw nañ taxaw ñu ñëw fi ñun tamit def suñu déguisement di jàppale sama yaay ji xam nga jàppale teral gan yi et tout daa ma gën xam. <laughs> waaw kon ñoo ko gisandoo ñoom si gàmmu gi ba tey a ah, doon invité suñuy gan di leen laaj leen lañ xam tey ci gàmmu gi ah, wax dëgg yàlla macha allah kàddu yëpp rafet na ah di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal leen jàmm ah di leen dig dox daje ba ci kanam incha allah ñu dem ca tànt ba xool nan lañ préparé gàmmu gi ak nan la ñuy defee gàmmu gi incha allah. nag bu jiitoo ñu topp bu nu jàqee mu bu nu tiitee Euh, salaamaaleykum comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek ngeen ni ànd ak Sister Zeyna la puissance ba tey maa ngi ci gàmm gi bougé ma benn yoon euh, sëñ bi nuyu naa la. fay naa la. waaye ngam jàmm. sant yàlla bu baax a baax a baax. tey ñu ñëw ci gàmm gi ñu fekk la fi macha allah euh, ku nekk gis na la suba ba tey toogoo yaa ngi ci liggéey bi yaa ngi ci waañ bi yaa ngi fépp tey su ma doon laaj lan nga yëg ci gàmm gi an lan nga may wax. waaw yam contentement baax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sant bi sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp ñëw ci gàmm yëpp gàmm gi moom xam pabi bi boo gisee tey fajar ba ñoy dang-dang pabi mom moko waral xam nga mom moo ñu yaree quoi xam nga mor lu am ak lepp lu mënd rek dang ko ci def. tamit comme ni nga ko waxee rek euh, sa papa daal leen yar ci li nga xamné mo nek diiné diine ak euh bëggon na xam lool tamit euh, ci yeen cadeau euh, rek nga ma si sànni tuuti. wa yar mom diine islam moy nango liggéey ama jaam yalla bañ jël yëfi jàmbur loo am bokk ko nit ñi chaque jour lool lay ñaax surtout liggéey bi quoi lool lay ñaax chaque jour. su loolu nga chaque jour quoi. di la jaajëfal rek macha allah su ma jógee foofu damay dem ci sama papa ju baax ji Khoule euh, papa nuyu naa la. maa ngi leen fay baax a baax a baax. papa tey ñu daal di ñëw seet si la sa gàmm gi nga xam ne chaque année danga koy def papa bëggoon naa dugg yow ci ay question tuuti rek euh, ñu ciy ànd ak waa El Média comme ni ma koy waxee ak ni ma koy defee chaque jour papa bëggoon naa xam ndax gàmm gi nii c'est la première fois euh, nga koy def wala. yàgg nga di ko féete. waaw naa bu ñu sant yàlla jullit nañu salaam gàmm gi gàmmu waa dëkk bi la gàmmu mag ñi ñoo ko doon def ba nekkee xale ñu toog lu ma trent ans gàmmu amatu woon man ma toog ba yàgg rek yàlla xiir ma ci rek xam na lu yàlla dogal ci nit tomba yorul ay gaaf ma ne ah, gars yi kon nañuy fas yéene dafa gàmm ci dëkk bi ah ñi ñu ànd ceeg ñun ñoo leen sax comprendre woon depar bi waaye mujj ñëpp ñu ànd biñ ko commencé na bu yàgg na ñu dem Serigne Abdou mu jàppal ñu bis Serigne Abdou Aziz Alamine yàlla na yàlla yokk leeram moo daan ñëwal boppam ci boppam dañu ko gàmm di ko defal boppam ci conférence moo daan ñëw ci cérémonie bi dañu ko taxaw ba mu jeex at mu jot mu ñëw da ci jàpp da ci ñaan kon nag wax dëgg yàlla yonante bi doolu ba léegi doom yi ni nañ ko doxal Serigne Moustapha itam ñu ngi koy gërëm di gërëm ñëpp nag waaye Serigne Moustapha si mu Serigne Abdou Aziz Alamine dafa ne lu baayam doon def moom xëy na du ko man ndax bokkuñu ay maymay waaye dina jéem góorgóorlu fu bàyyam doon dem dina fa jéem a def la baayam daan toog xëy na du ko man waaye dina jéem fu baayam teg tànkam rek dina fa jëmale tànkam ci barka baayam ñaanal na ko baayam baayam jokk ci ndigal mu di ko doxal kon gàmm gi gàmm gu yàgg waaye gàmmu ndigal la boo xamante ne nii vraiment sëriñ Abdou Aziz Al Amine moo ñu ko defal daan ñool boppam di yebal ay doom ba léegi ay doom du ñëw nii nii ñu ngi séntu ay doom mu ñëw lam toora si ñëw na léegi ci kaw ndigal ba mu koy defee ndigalu Seydi Mouhamadou Mansour xalifa général de Tidiane boobu mu ngi taxaw mooy wax moom di ko jox ndigal di ko ci wax ndax ñun sëriñ bu ñu ko xamee sëñ Mansour moo ñu boor ñoom mu téel ñu boppam jàpp ñu ba léegi kere rek lañ ci am la ñu nax mooy bi ñu xëyee gisatuñ ko waaye jë lam ñu digaloon teg ñu ko ba léegi ñu ngi ko gis mu ngi mel ni ñu ngi xool jëmmam ndax lam ñu daan digal lan ñu daan xelal ba léegi ca loolu la ñu dox te saa yéen gisee dañ am jëriñ nangoo liggéey jaamu ji lañ sëriñ du teg jàngal alxuraan jàngal alxuraan wattaal alxuraan jàppale ñuy jàngal alxuraan loolu sëriñ bi digal ñu doog a doog a bële kon gàmm gi defe naa gàmm baatin la lu ci waay def rek sa waxuma la sax waaye yéen ñi ñëw tey su déwénee da ngeen gën a yokkuwaat ndaxte am na nañ ko fi jàng nañ ko fi kaamil tey kon nañ ko yàlla ba di leen gërëm di leen ñaanal nag seen télévision bi yàlla na yàlla jàppale ne bu mu nekk télévision yi gën a kaw a yàlla na ko yàlla def. Euh, ma gis la sànq macha allah ci dugg ci gan di xool ndax lekk nañ wala naan nañ papa su ma la doon laaj euh, tey lan nga yëg ci màggal bi ana lan nga may wax euh, njaboot gi yëpp daal la fiy teewal mbokk yëpp daal lay teewal ci li nga xam ne moo nekk màggal gi ñëpp day ñëw teew papa su ma la doon wax lan nga yëg ci ci ci gi lan nga may wax. waa li ñu mooy comme màggal moom ni ko ñëpp def rek xam nga magal boo leen gisee buñ ko tuddee màggal sax day dem ci Touba ndaxte euh, Serigne tubaa ci boppam bi mu see ba ñëw dafa nañ ko sant yàlla mu jël nit di leen berndeel. te gis nga boo demee màkk tey tey tey tey nii màkkatal mu karama tey nga dem fa da ngay xool foofa nit ñi ni ñu taxawoo ci Arafat da gis ay milliards milliards ci ay lekk ñi ko jox te doo xam ñi ko joxe kon berndeel ay nit li ci nekk dafa am solo li jumaa di for for li jàkk foor for li def lépp mais jox nit moo gën a foor jumaa gën a foor jàkk ñu lekk kon bu ñu amee lu ñu mën a am jox nit ñu lekk ko ñun duñ ci gis seen bopp dañuy xool nit ñi ñëw di ko lekkal foo nit ki bu lekkee ci loo ko jox mu jàpp ci rukkoo ci yàlla mën na la jégal jégal kooku moo tax mu am solo torop duñ jëkkati nag dara di ñaan yàlla loolu bu continuer xam naa ne bi may ñu ko te dafa am ay yeneen yitte lay dox euh, papa lan ngay tàggatoo euh, ak waa El Vision Médias lan tàggatoo ak sa njaboot lan ngay tàggatoo sa mbokk yi nga xam ne tey teewal nañ fi ak sa dëkkandoo ak say xarit waaw di gërëm ñi fi teew ñëpp di gërëm vraiment kii nekk sama ndeyjoor mooy euh, Serigne Xaadim mi daara la yore cité Mandela dañu koy sant dañu am nag lu ñu rëcc ci moom yéex a ñëw cité Mandela ndax sunu xel yëpp ñu ngi tari alxuraan xel boo ci tari tey taxawal tey muy jigéenu góor mën na tari lu ko neex ci alxuraan te moo doon di jàngal di leen jàppale te yàlla rek tax kon day loo xam ñoom mu ñëw ak ñu mel ni moom ñëw fii aussi damay wax ni rek tey barke bu ñu waa lu ñu séentu fii yàlla nañ ko yàlla boole ku ñëwoon fii tey yàlla na yàlla fese aajo yu biir ak yu biir yàlla mën na ko tey yàlla na ko yàlla def kon daal li ñu mënul daal comme cérémonie dafa démarré dañuy sant yàlla di ñaan yàlla ñu dajawaat fi dajawaat ci yeneen jotaay ba yàlla kaweel leen fi ngeen agsi ren yàlla na ngeen ko passé bu ne te passé ba yàlla na leen jik suturaal leen ngeen am mujj yëpp yàlla na ko yàlla def ku fi ñëw yàlla yàlla fas see aajo te am nañ moo tax ñu def lii jërëjëf kontaan. Eh, nekk si teg ko si boppu organe de presse bi njëkkee ko parce que daf ñu gën a jege ah El Vision moo ngi nii Walfadjri FM ñoo ngi fi Thiès Info.

presse en ligne presse rajo télévision gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp. macha allah comme ni ma leen ko waxee damay dugal euh, ajaratu yi ñaaw lii macha allah sañse pour waajal li nga xam ne moo nekk gàmm sama yaay dugg si leen nii ñëw leen ah sama yaay ju baax ji comme ni ma koy waxee nee naa ko yow man maa la yaayoo daw ma ci dara ah gis nga lii tey nga xam ne def nañ ko. mama yaay seex taw feex kon li nga xam ne sañse nañ ko macha allah Leuz damaa bëgg nga jëlal ma rek euh, sama yaay yu baax yi nga xool lu ñu sañse euh, li ngeen sañse nii tey fas yéene jëm fan. waaw fas yéene jëm ca réception ba rek ànd ak sunu alaaji gis nga ni mënu defal. waaw xam nga moom yàqul jigéen macha allah waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax. nee sama sama jëkkër bu màggee yàlla mel ni moom euh, Leuz jëlal ma fii ci kaw nga xoolal ma jongama yi lu ñu sañse li nga sañse nii nag fas yéene jëm fan. xanaa fas yéene dem ci tànt ba rek di ñaanal alaaj bi gudd fan ak wér rek ndax nii ñu def rek moom la lépp moom la yàlla na fekk njariñu xale yëpp fas yéene ko gunge ba ci tànt ba rek noonu lañ fas yéene waaw daal lii bëgg naa ko tamit booy dem ci tànt da nga fës ba nga xam ne fu waaye toll rek di la seen gis ngeen tey sunu yaay baax yi li nga xam ne sañse nañ ko comme ni ma koy waxee suñu papa ju baax jooju sama jëkkër ju bu màggee rek yàlla mel ni di la jaajëfal bu baax a baax nuyoo boo xam ni nuyoo suñu borom la te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waxkat ba nag dafay wax ni ku war nguru rekk tudd dëkk waaye dëkk bu nuy tuddit ay nit a tax wa ma sawwala al aqtaaru illa rijaaluha وإلا فلا فضل لترب على ترب bu dul nit rek dëkk du am solo kon nit la yàlla fonk ba tax fu mu nekk rek foofa am solo waaye ndax nit xam na loolu boroom xam-xam yépp dañu d'accord ci ni bi ñu seetee organisation yépp bis bu ne ñuy organiser te ñiy organiser ñëpp ay nit lañu wante nit ña am na ñoo xam ni fanu leen di teg ndax yàlla teg na leen fa muy jàngat boo xam ni dañuy ñaan rek ñu jéem koo jàngate xel bañ koo jàngate xol ndax boo xoolee baas bii ni mu toll nit a ko defar te nit kooku yàlla ko bind yàlla moomu ba mu koy bindit fo taxul waaye dafa am lu mu namm ci moom pour mu taxawee ko ci kaw suuf jox ko xereñu baas bi avant démb boo fi ñëwoon dara nekk fi waaye nit ci xelam ak ci mën-mënam bu ko yàlla may doonte néew la moo fexe ba taaral ko nii dajale fi ay nit nit ñi nag façon bu ne nekk bu dee ci wàllu góor bu dee ci wàllu jigéen bu dee ci wàllu mag bu dee ci wàllu ndaw façon nit bu ne mi ngi fi ñii bokkuñu seen morom lu ñu sol ni nu wuutee ni la nu wuutee ci sunu borom waaye ñu tànn ci ay nit nattu leen tabaxal leen lu ñuy tudde pañoom yéegal leen ca kaw waaye nit ñooñu bu ñu bàyyiwul xel ci ni yàlla leen nattoo ñu yéegal leen ca kaw ndax yéeg ca kaw ndax yàlla ànd ca yàlla mën na ci ba ñaan donte borom dëkk la donte monsieur le maire la donte borom réew la donte imam la donte sëriñ la bu ay ay ay njaboot topp ci moom. macha allah dama doon wax kon gone yi ñooy def waaye dafa mel ni gone yi defatuñu mag ñi ñooy def ndax boo gisee sama maman bi lu mu def ci couleur dafa def li nga xam ne moo nekk meuf daal si jaxasi li nga xam ne moo nekk rose maman li nga sañ seen ak sa créer bi ku la ko jox. ah dama ko créé noonu rek ngir guddi Mouhamed bi rek sallallahu alayhi wa sallam di ko màggal nii rek li ma la waxoon ci bëccëg rek. Mhm. léegi jëlee ma sama maman bi ci kaw ba suuf waaye. kon maman di la jaajëfal rek di la wax ne dañ la fekk ci tànt bi léegi rek incha allah gis ngeen tey li nga xam ne moom moo fi xew comme nuñ koy waxee rek. yonent bi mën na maa gën a yaatu tànk waaye man maa ngi Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine fu yonent bi jéggee ma teg sama bos du ma ak sunu am benn yoon eh, eh xam ngeen ni Maodo raxul sunu si yonent bi benn yoon. bindu bindal ci maami Serigne Cheikh Tidiane si al maktoum bindal xar bi maa doon la def de Cheikhuna Tidiane mu doon nu mbooti nit bi maamam Seydina Muhammad yàlla nekk saa su ko déwén vraiment kontaan nañu bëgg nañu sant nañu ñoo ngi bëgg yéen yëpp monsieur le préfet le sous-préfet du moins am nañu moom kàddu gi autorité politique yi am moom kàddu gi ndax ñu ci kaw promoteur bi grand promoteur di ko euh, Sidi Diakhaté rek mais dafa am suñu promoteur bu mag bi nga xam mooy rajo mu dugg foofu laa bëgg a waxee parce que dafay am chef de village bi naa ko Modou Koumba Sarr naa ko le promoteur des promoteurs. te doon kër tam sax la ñu ko yemale kon ñoo ngi leen gërëm ñoo ngi leen di gërëm nag xale yi bu baax a baax a baax a baax a organisation dara faayu di gërëm jigéen ñi bu baax a baax dara faayu képp koo xam ne gërëm ma la rek man gërëm naa la ci sama xol dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër na surtout Kër Ngor Kër Euh, kër moo sawar kër moo sàmm sant ñooñu ñëpp ñoo bokk lépp man daan def asalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah comme ni ma leen ko waxoon nag ma ñëw taxaw ak ki nga xam ne moo nekk sëti Serigne Touba ñu ñëw fekk fi si li nga xam ne moo nekk gàmm gi euh, sëñ bi nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay soxna si bu baax di nuyu ñëpp di wax wasafalillah li walakum wali saadul muslimina di siyaare bu baax mbooleem ko nuy taawlu ak fépp fu mën a nekk fii ci sunu kër xarit suñu kër mbokk suñu dëkkandoo di kër moo Modou Khoule di nit ku baax di màggal gi nga xam gàmm gi nga xamante moom la woote tey moom wooleem ñu mbokkal dëkk bi di màggalu kër Thione Sarr ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñoo fekk si ko wuy si ko fii nag tey ngir ak mbaaxam ak giiwam ak bëggam lu baax nekk ko fee mu dëkk ca fas Mbao ak njabootam nekk fa ñu ñuy ay dëkkandoo yoo xamante ni lu ne lay sonne ak di ko daj ci sunu jëmm ji te noonu ñu koy noonu mu ñu koy defale noonu la koy defale mboolem kilifay diine yëpp amul benn tarixa mboolem kilifay diine yëpp yëpp yëpp bu mu xama bu xam ku xam alaaji Modou Khoule xam ko jëf ju baax ju am njariñ ju lislaam gërëm ñun de fee ñu dëkk ca cité Mandela Fass Mbao xamuñu ku ko fa man ca la ñuy yëngu muy ca diine lislaam le 21 avril bii passé laa def événement bu mag ca Fass Mbao cité Mandela mën naa ne bokk na ci événement lislaam yi fa gën a rëy waye kérok teranga yi ëpp doole man naa ne moo def ndax nit mom bo wootee magal mu jënd nak bu mag ñëw yéwal la ne la wax ma lo bëgg ma defal la ko ci bis bi foofu la teranga mëna yam kon wax dëgg yalla am tay bis bi ñëw na fi képp ku ma am Touba la jogé ni donte de fas mbaw la nekk mais Touba la jogé ni légui sama kër Touba waron dellu Dakar ne bala ma def dara dina jaar siara sama xarit ndokkel ko ci bis bi ndax ñun aljum bu jot Touba la nek nekk leen ne ngi koy Dakar waaye daal wax dëgg yàlla donte suñu yite suñu jamono xat na lool lool lool lool waaye alaaji Modou Khoule moom lépp lu mu wootee bu nu bu nu ca teewul duñu ay gor wax dëgg yàlla ngir lum ñu ji ndax li wala fi di wax rek koo xamul noo koy def noonu la dafa tax te moom ji nañu teraanga daal yoo xam ne lu ko def rek lu ko defal rek wala lu ko lu ñu ko def rek dañuy jéem a fay bor bi loolu daal moo ñu andi fii tey soxna si. di la jaajëfal bu baax a baax di la ki Papa Lamine doon tudd léegi muy El Hadj Modou Xole El Hadj Modou Xole kàddu gaa ngoog. ah mbooloo mi maa ngi jégalu ci baat yi may wax nii ndax imaam wax na léegi te am na ñu ne ci kaw ñu war a wax waaye Thiel moom Seydi Mouhamadou Mansour yàlla yàlla yokk dama daan wax naan. ndigal daal soo mënee defal boo mënul defal comme dañ maa jox dina dinaa jéem a ñam ñetti rek ndax papa Lamine Sall mi wax léegi suñu papa euh, ku sonn ci daay bi la waaye ginnaaw bu sant yàlla julli ci Rasul sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu mboolem ñu bokk ci lii di ko doxal di nuyu dëkk yi ñuy gërtoon góoroon jigéen mag ak ñett fan kenn nekkul ñëpp ak dëkk yi ñu ngi leen di gërëm di gërëm itam. monsieur le maire Ousmane moom laay mujj sax waaye di dalal sunu gan ñi fi toog kii ma toog sama loxo tamit mooy maam Baara Fall xalifa taw mi ngi di toog te ngoon gu mel nii yombutaa su ma jógee jëm sama ndeyjoor damay xool sëti yoon sallallahu alayhi wa sallam yi toog nii. te ay daara lañu xam nga gars yi dañuy woote présidence Amith Kounta mi toog bi ko joxee parole dana gars kenn ko na la jox sa borom ci kanam président xam nga ñoom ay daara lañu te daara boo ci nekkee mënoo cee xam dara nga dellu ñuy baat moo gën ñun bu ñu xoolee ñoom dañuy jàng daara euh, kii di Amith Bassin Kounta bi ñu nekkee tuut tànk dañ ko daan diglu jàngal na ma yonent yu bëri bëri lu ma ci mën a wax ci moom mi laa ko jàngal lu bëri bëri Amith Bassin ñu bari war nañ ko dugg ci RTS kon ñi ngi leen di fàttali di ko fàttali suñu bopp ñuy jéggalante tey baalante ak te ku mën a jàpp na sa borom ba jàpp na te gis ngeen julli am na solo mais mënut a fari mënut a dindi bàkkaar ci nit woor bu dindi bàkkaar ci nit déedéet xam nga dindi bàkkaar ci di looy mën a def lu nekk da ngay daan sa doole nangoo liggéey te jubal di wax dëgg te jàppale ko mën a jàppale loolu moo dindi bàkkaar. wu ko de déedéet jàngal xoraan wàcce wu ko dem ci yoon ci wàcce wu ko de xam lu koy wàcc xëy na tës ubbi sa xol yéena lu baax liggéey yor say njaboot jàppale koo mën a jàpp mooy wàcc sa bàkkaar. référence benn danañ ci jox tuuti kii ma toog di Serigne Bara mii fonctionnaire la su weer dee dee fay ko dama damay téye sama bi rek dina naaj ñu dox mais day liggéey gàmm moom defe naa matagul semaine wala ci la yem daf leen ni Baye Fall day jël Baye Fall am fulaa fayda nangoo liggéey te jaamu yàlla tey wax dëgg tay xay tay set loolu di Baye Fall waaye soo dee sagar di yàlla taxul nekk Baye Fall moom mi moo moo ko bëgg dem matagul semaine maam Baara mii toog moom mii day fay bu weer dee yaakaarul benn taal bi kii di amee guddi xam ngeen ko. mais bu ma sëtoon ko tamam dama naan sëti yonent laa damay toog dajal samay taalibe may day liggéey duñu amee bàkkaar mënut a nekk mënut a nekk jàkkaarloo ñoom tey jii de sa bàkkaar boo génnee ci tàndir bi ku fa nekk fii jàkkaarloo ñu tedd ñi ma sama gauche ak sama droite ak li imam wax ak ñi fi jàng wax li wax léegi léegi léegi nee na maa bindoo sëriñ Abdou ci onze 11 you mois ci weer bi ñu nekk mu journal anniversaire di wax ma ko wax ma defal ma ak ni ñaanal ma ndax ma dem te duma bëgguma kenn koy la ni ko euh, man ne suis si te ñu bokk benn baay moom mu ne ko nañ ma woon Serigne Mansour mu fekk si ma Dakar Dakar ca waaye Maxtaar Kebe lan doon si toog mu naa ko Bousra ku moom xat wu lii tu ni ko man sa baay damay jël si yor manteau bu wér te bëggul ma ko tànnal ndax mooy sama Serigne xam nga mooy lan Serigne Abdou Aziz moo ne Serigne Babacar Seye koo jël si te léeg ngay lay jël passation de service bii mu jël dana ko jox si ni Mouhamadou Mansour tey ca la ko naan ku la fonk laa depuis lu ginnaaw ñaar fukki at juróom su may naan kees si yow kaasu euh, ndox ndox su ma ci defee ndox di ko xool yow laay seen ci ngay jeexee doo xam ñi ko joxe kon berndeel ay nit li ci nekk dafa am solo li jumaa di for for jàkk foor for li def lépp mais jox nit moo gën a foor jumaa gën a for jàkk ñu lekk kon bu ñu amee lu ñu mën a am jox ko nit ñu lekk ko ñun duñ ci gis seen bopp dañuy xool nit ñi ñëw di la ko lekkal foo te nit ki bu lekkee ci loo ko jox mu jàpp ci rukkoo ci yàlla mën na la jëgal jëgal ko sëñ bi tey bu dëgër te bu ragal te bu tiit yàlla nga jox lii mu jox te kenn du ci man moo tax sëñ Maodo Mansour yàlla yàlla yokk leeram dama naan xalifa bu yàgg xalifa bu tey xalifa boo xamante ni borom yi dërëm borom yi dara borom yi daraja borom dame saa maam nee ma kooku mooy Seydi Seydi Mouhamadou Mansour fu mu jëm nga ree ku ko seen ree ku ñu defar la mbaa mu defar la mooy sëriñ boo xam ni daa jël nit jël leen ko amee aajo nga ñaaroon moom mu defar sa affaire soo génnee nga defar affaire kooku la nga defar affaire kooku mooy Seydi Mouhamadou Mansour maa ngi wax léegi ci Serigne Bara mi ma doon wax léegi léegi léegi ni maam Cheikh Ibra Fall dafa nekk maam man ku ne xam ne Coro Fall moo jur sa biiga moo ko jur may sa Khoule ko jur ñi baax ñëpp ñoo bokk ñi baax ñëpp ñoo bokk muy maam Bara waaye maam Cheikh Ibra Fall bi mu ñëwee Sénégal dafa ñëw rek nekk fi di liggéey Serigne Touba bu ñu ci jëriñoo bu bari bari bari Cheikh Ibra Fall tax te yàggul moom moo ko taxaw ko ci dooleem taxaw ko ci saalit ba Serigne Touba xool ko ne ko hee yow de xool naa tey soo naa la bàttan foo jublooti yow yàlla rek nga jublu moo taxoon mu tax gars yi am lu ñuy jaawale ni dana yàlla deel dama ne tànk yàlla bu mu doon seen gis ci yow dina jaar ndaxte ne fu yant bi teg nga tànk te yant bi yàlla lay diir kon yow laay di jàpp ci yàlla boo ko mën a bu ñu jógee foofu monsieur le sous-préfet ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax Euh, Ahmed Bassirou Kounta ñi di sëtu Yonent sallallahu alayhi wa sallam Ahmed ñi nga leen di nuyu baax a baax di nuyu sunu sëriñ xalifa fi yàlla yàggal baax a baax di xam ne kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ñu ngi nuyu ñi fi nekk ci kaw si di jàpp ñi nga leen di gërëm yëpp di wax waa Koupentoum président dama bëgg nga ñëw fii euh, euh, Babsar ñii waaye daayee pour ñëpp dañuy ñëw def délégation dañuy ñëw ci organisation lu ngeen bëgg ngeen def ñu ngi nii toog di waxaat ne rek ni dafa am ñoo xamante ne yàlla dafa bind te yemul wu leen de yàlla day bind te yemul wu leen xam nga jàngi suuf la mais du leen yamale nañu nangu yàlla di bind te du yamale gis nga Seydi Mahamadou Mansour Seydi Abdou Sis dafa ñëw sës ci moom te mosu ko dëkk benn nekk sarwisam sorofot ci sow penk sorofot gànjul si benn sorofot mooy Seydi Abdou Sis kooku tam mu ñëw nekk wàllu baabu gerte wax naa sànq nee leen ci ngoon ci lam toor yéen seet Seydi Hadji Malick kere ba mu demee Fass gisee Cheikh na Ahmed Tidiane dafa ni mbir maa ngi noonu salatu fatiha bi am na benn dàq bu la jël na ko jël yokk yóbbu ko Sénégal tey ko teewaat xam nga moom ñëwee lu wax seete yonent bi kaay ñëwoon xanaa nga dem nga ñëw waaye wallahi ku bëgg a xam ci Cheikh na Ahmed Tidiane Algérie la la ñëwee ñëwoon waaye yonent bi Makka la juddoo mission bi mbir ma wax la fii ci daal ma wax la lépp man Cheikh Seydi Hadji Malick mu jël lépp def ko ci ñoom di jël bi bàyyiwu ko bàyyi ko juddu ba tukki ba gàddaay ba bañ ko robee ñi ko jullee ñi mujj ca bàmmeel ba ña doon raay bàmmeel ba lépp Cheikh Seydi Hadji Malick wax nañu ko wax dara yoo génn ca nopp yonent bi ak bakkan yi doon génn wax na ma. Yeah. li duuf ci nag bi nag gars yi li duuf ci nag bi demul ci cin waaye nag dañ ñoo jox ay cër ñuy wax Seydi Mamadou Mansour ma jëkk jox cër siyaar fédération daayira Kër Massar yëpp toog ci weer koor mu jox ma parole ba gàmmu gii passé Pikine dama di waxtaan ba ñu ne ma yow mii day war nga ñëw ci mbooloo yi di waxtaan di ci wax ci gàmmu Sëñ Mansour bii passé ma dugul fukki fan ci Pikine ci gàmmu Cheikh Ahmed Tidiane xam nga seex yi mënul yenn yi seex ku yaru la seex ku tey la da seex ku yiw la ku baax la mënta waaye wax naa fa loo xam ne nee naa Seydi Mouhamadou Mansour mooy borom affaire ya xam nga doon daal wax gaay kaay xamoo ma defal la nga dara kaay ma defal la boo bëggee loo bëgg a teel kaay maa ay chef de service sa aajul ku jàng wala ku jàngul dara xam nga mu ne Ousmane Sarr dafa ne kaay nag 650 mille laa jëlee Ousmane ko mën Serigne bi xaalis laa bëgg am na photo bu ci àndee boo demee kër Ousmane buy fa ñu seq sëñ Mansour dafa ni 675 mille indil ma nag ma defal la affaire yow Ousmane Sarr Ousmane ko man man ko damay miir de waaye ñaanal la suñu borom jéggal la suba yàlla sëñ Babacar ma ko jox bu yàgg waaye ñaanal la nga tekki fii loo bëgg nga am ko sëñ Babacar jox na ko bu yàgg waaye tax timis gii dinaa ñëw woo la photo ñu photo mu woo photographe ñu foto ñu Ousmane dafa tibbal na daal sëñ Mansour ci foto yi ngeen di rox ngir bëgg xaalisam gis nga bii laay wallaahi ban ko defee lan la mën a toog ñu daal woo Ousmane Sarr ne ko duwaale yi yore 100 millions seet nga bëgg baax espèce nga bëgg Ousmane léegi ne taxaw nii mu di ko wàññeeku sëñ Mansour defal ko affaire am waaye nag mënul ñàkk ci loolu Ousmane ku nangoo toppe la Ousmane ku nangoo kilifteef la daal di dem ma jox ko sëñ Abdou Aziz ak Amine yóbbu ko ca moom ne sëñ Abdou dégg naa Ousmane Sarr daw ñoo ngi ci déglu Seydi Mahamadou Mansour ma tàggu sëriñ Abdoulaye Dóor na ko dama bëgg saalu sëriñ Babacar bii ma defar ko sëriñ Abdou mu ni bi ko lay doon waxee mun ko saal boobu de ku ko defar defaru tey ak suba waxuma la tey mais tey suba la defar saal bi nag am na borom ba ñu moom la ko Babacar Seck moom ma soog ko saal ba sana sana ya Ousmane Sarr toog ma ñu jënd sonon mut ñuy séddoo bu jëndee bii ma jënd bi ñu di ko dóor sëriñ Abdou si woo ko ne ko kaay Ousmane dégg naa jàng yoodal bu mu tëddee nga laam ba sa boos waaye billaahi wallaahi jàng yoodal bu sa boos jeex te boros ma ndox doraan doo jeex dara Ousmane Ousmane soo bëggee dégg ko def. dundal bakkanam fii jadwaa jëlëmal yi dafa mel ni tamit góor ñi tamit ah dafa mel ni góor ñi tamit maye ñu jigéen ñi dara ah exact exact ah yéen yéen ay jaar fii yéen tamit. ma yaa ngi am jàmm sant alhamdulilah sant maa ngi lay gis ngay wax ak ki nga xam ne mooy suñu papa moo juróondoo ñëpp ëmmandoo ñëpp ngay wax ak moom maanaam euh, ma gis la ngay waxee dënn di waxee li nga xam ne euh, xol ngay waxee bëgg naa xam euh, paa bi ban relation nga am ci moom. voilà alhamdulilah vraiment ñoo ngi sant yàlla bu baax tey parce que dañu ko fekkewaat muy gàmm gu jot ñu fekk ko yàlla may ñu tal ñu fekkewaat ko. te de plus en plus mbiri di gën di yok donc dañuy sant yalla té aussi ki ngay laaj légui dinañ ci sawar wax parce que suñu bàyyi la muy Pape Modou je pense que tay dëkk bi reyna mais màgget gu fi nekk alaaji lañ lay woyé c'est grâce à lui màgget gu fi nekk alaaji lañ lay woyé parce que ñu ngi fi yobbu ci mak bari nañ té en plus euh, sa gamou da ngay gis dëkk bi nu mu rëyee mais day obligé jël ay nagam tong-tong ko pour que kune am donc vraiment geste humanitaire ko lolu moy mbok gu yalla don wax ko ma sa fan lay et père bi en tant que jeune ñun koy ñaanal guddal parce que nañu ni war quel que soit alpha quel que soit votre statut vous êtes des ou bien n'importe quoi nañu ki jàmbaar rek mooy mooy nekk ci waar bi te incha allah yaakaar naa noonu la inculpé aussi tamit njabootam noonu la ñu inculpé aussi tamit te incha allah danañ jéem a lu topp ci ay tànkam pour def geste humanitaire yi demee noonu. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi loolu la wax di ñaanal jàmm ñëpp ñi nga xamante ni ñëw nañ ci dëkk bi di ko ñaanal Sénégal ñëpp di wax ni tamit yàlla def jàmm. nangu seen dër nangu seen jur ya ak seen kër ya ñu daw làqu ji ci madina al munawwara taxul Quraysh bàyyi leen ànd ak yahud yi di fexe rek jëmale ci yenent bi ba ñu toogee eh, gànnaay jox ko saay saay bu ñuy wax doxu zuur ngir mu boom rasulullah du léegi ñi dégg ni Makka yónni na njëgg ca Shaam ku nuy wax Abu Sufyaan moo doon naayibu Abu Jahlin moo ko jiite jullit ñi ni ànd ak yenent bi ne na lu génn njëgg ma buñ ko tegee loxo du mat sax asaka alal ji nu nangu ci ñun waaye ñu teg ko loxo rek waaju ñu xeex waajaanu xeex amuñu gànnaay itam ñu génn yàlla ne ah, koom moo leen tax a jóg du ngeen dellu Madina dem leen ngeen xeex ak ñoom ñetti téeméeri julli ak fukk ak ñett ñee di junne ak seen gànnaay ak seen jumtuwaay yàlla ni xeex leen man koom taxul ma wax koom kooma tax ngeen jóg di xeex tey ñu xeex jullit ñi am ndam keroog la yenent bi di ñaan ba naan yàlla lim bu néew bii boo leen seetaanee ba nu dàq leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf yàlla jox ndam jullit ñi mu di weer woo xam ne itam ci la yàlla joxe yenent bi fatxu mag ci atu juróom ñetteel ba ca gàddaay ga ci weeru koor la woon ñaar fukki fan ak benn ndax dafa metti woon ba yenent bi ak jullit ñi di wax naan maata nasrullah moo wallu yàlla kànni yàlla ni leen ala inna nasrullahi qarib soreetul wallu yàlla soreetul waaye isa jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وبابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wallu yàlla bu ñëwee soreetul waaye bu ñëwee da gis nit ñi nag la nga am ñuy tabbi ci diine di dugg sa fan bu boobaa sàbbaalal sa borom te jéggalul sa xeet wi ba tax na yéen ñaar ñëpp dana leen buggal tey man nag li ma gën ragal ci aaya boobu yàlla wax ci suratul baqara mooy fa mu jeexale dafa ni wa maa hum bi xaarijiina min annaar waxu yàlla la de duñu wax ni nit lu mu saay saay saay saay ba nu koy lakk ca safara بكمين يلا كنلا بكتي موحدون دوتو سفر بور توجور أنا فاني فخينا سانتا دسان زان تراسان زان خان يلا خام يانا جي يلا وايدو فتو بور توجور سليم بي أكتالي ببنا يلا دفاني وما هم بخارجين من النار نيوم دلو كينا سفر بور وخو يلا لا دسان وخي دماني سمدق laay wax sama diggante ak yàlla dama ne gannaaw yonent yàlla Muhammad kër soxna astukat gisuma ku leen gën tabee ci àdduna waaw milliard ak fifty la ma yemale seen Cheikh Tidiane mën na am tey milliard gannaaw ëllëg nga ñëw fifty du ko yore joxe na ko ba mu jeex sëñ Abdou noonu la mel ma xam ci moom fit ak njàmbaar ak am ngërëmal baayam Cheikhul Khalifa Cheikh Khalifa moom mosul gis sëñ Abdou bët yi dégg lëndëm kon si bu fekkoon ni ala lay tax du dem kon du dem bu fekkoon ni dund ni nit ñi ñu bëgg dee nañu ñëw dee ñu bàyyi sëñ Abdou Aziz dund ni daaru dee nangu dee wala teel bàyyi ko fi ndax dundam gu am njëriñ doogu dama ni ba sëñ Babacar génne àdduna ba ni mu suuf moom al amin mosul jóg ah, ci responsabilité boo xam ni dafa boole le sëñ Babacar amoon na ñu mag ñi amoon yëpp di responsabilité bi di ko taxal. danañ na ko yàlla fayal danañ na ko yàlla fayal man nag dëgg-dëgg lañ ko xam ne si dara ñàkk naa xarit ñàkk naa mag ñàkk naa koo xam ni wax dëgg yàlla ah sama lépp la te it fa ma féete woon bare na rëy na ànd na nu tukki ba tay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

الحمد لله وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الفاتح والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالهدى إلى يوم الدين رضي الله عن القلب المكتوم والبرزخ المختوم سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين kàddu yi danaa ko def kàddu yi gannaaw bi ma nuyoo mbooleem kër gannaaw bi ma nuyoo mbooleem kër Coon jiital ci nag sama bàyyi yi di samay nijaay Ahmed Bachir Mahamadul Amin ak nag suma sëriñu daara ndax ku jàngal sa soxna moo la jàngal te man àndamaka harfan waahidan wa huwa mawlaak ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen eh, jox seen wàccuwaay rawatina kilifa gi ngeen fi teewal di nuyu monsieur le di ko ziar di ko masawu day jéggalu di nuyu mbooleem kër coon di ci tudd sunu baay bi di Baye Daour di nuyu ci jëmm mag ñi nga xamante ni ñoo fi daje yëpp nuyu soxna yu tedd waaye suma ñaari collaborateurs yi mën nañu leen ziar leen di monsieur le maire Ousmane ak El Hadji Modou Khouli nuyu mbooleem kër coon ak tund wi ak li ko wër jéggalu bu njëkk mooy jinne bu soxlaa daqaar ku yëg da ngay daanu te ca Dakar Serigne Pape Malick dafa waroon taxawee ji xadratul jumaa te mu yónnee wax ni faw ñu ñëw teew ndax xadara bi Serigne Abdoul Aziz moo ko daan teewee te yàlla def ñu ngi ko ko delloowaat ngir moo sosoon xalaat bi dénk njaboot gi ñu di ko taxawe ba daaw moo ko taxawe ren yàlla dogal li mu dogal ci moom mu sàkku ci nu ñëw teew ndax moom mënu faa dem moom kot lii moo tax waxtu wi ñu daan ñëw fii mu fomm nu jégg lu ci bu baax a baax waaye itam ñëw rek ndokkeel ndokkeel kër coon ndokkeel tund wi ci bis bi nga xamante ni ah naka jekk daan na am naka jekk teewaay bu rafet bi daan na ko teewe naka jekk daan na mel nii waaye bu ren bi nag wuute naag bu daaw bu ren bi wuute naag yi daan am ndax bu ren bi la tombeek sunu wayjur yi fi daan teew di fi teewal Cheikh Mouhamadul Mansour di fi teewal Serigne Cheikh yàlla dogal li mu dogal ci moom mu dem kon dana jaabu bu yàlla defee lu mel ni ñu def ko kenn ci njabootam ñëw teew fekki ko li rek moo nekkoon li taxoon lu doon gaawantu ndax fële dafa tas rek taxaw ma fenn lu dul naa yegg si kër coon ba dëkk bi yëpp gis na ñu xam ni nanu ko daan defee ñëwati nañu ci lool kii nag li mu wax léegi mënoon nañ caa yam ndax li mu résumé ci sëñ Abdoul Aziz lu mu dundandoo ak moom la nun dañoo gimmi rek gis leen ñuy ànd ak sunuy bàyyi mu bokk ak ñoom li mu bokk ak ñoom ndax Seydi Aboubacar Sy moo ko yar mu nekk ci ëttam nekk ci biir néegam di ndeyjooram di xaritam di léppam mu jur ko ni mu jure Serigne Abdou jure ko Serigne Mansour jure ko Serigne Cheikh kon mën nañoo wax ni témoin oculaire la te li nga teewee dafa gën a wér ci li ñu la nettali lu mu la wax ci Seydi Aboubacar Sy fekke na ko ndax bu ko ba Babacar de wax mu nga ca biir néeg ba wala mu nga ci ay luppam loolu nag moo tax bu nu yemoon ci li mu wax rek doyoon na sëkk waaye nag a ah, lu rafet lu ne dafa lu ko gën a rafet lu mat lu ne am na lu ko gën a mat lu jekk lu ne am na lu ko gën a jekk dafa gën a jekki boo waxee li nga wax ba yëggal bala ngeen dem nu wax leen ni leen a ah, nu ne lii la nu doon ci yéen lii la nu fekki ci yéen ngeen dundandoo ko ak mag ña leen ci Tiwaawan ku ne xam ko ngeen bokk li ngeen bokk sëriñ Abdoul Aziz yéen yéen a mën a wax kuy sëriñ Abdoul Aziz ndax yéen a ànd ak moom tukki te nit pour nga xam ko dëgg-dëgg metti ba nga ànd ak moom tukki yéen a liggéey ku ne xam na ittihaadul jamiya islamiya sénégaliya mook yéen a ca bokkoon sumb bokk ca sas ku ne di bay la ngay bay mbay ma rafet lool ngeen séq li ngeen séq kon mën ngaa wax ci moom loo xamante ni kenn du ko dindi ndax danga ko dundandoo ak moom man li may néew néew di njaboot gi gën a tuuti ci njaboot gi mu njaboote ànd naa yow tukki ak moom gis ni ngeen jëflante gis ni ngeen di waxante gis ni ngeen séqe ak orma bi yàlla dogal seeni diggante kon man kañ war naa mën a ñëw teew seede loolu rawatina nag ku ne xam ne ni Tiwaawan ak Njaasaan du nu ñaari dëkk benn dëkk rek du nu ñaari usra benn usra boo demee Tiwaawan Njaasaan nga ca Tiwaawan mën naa wax ni tey nun ñëpp fa nu jóge kon ala kulli xaal li may seede loolu li ci def al Mouhamadou mëne moo ko moom ndax wuy juróom bu tedd doo soxna mu wan daf noo defoon doom di nu jël di nu bu xëyee ba e, togg añ wala reer day taxaw ci koñ bi pour ku mu njëkk gis ci njaboot mu daal di lay diir yóbbu la ca biir kër gi nun mësunoo xam waañu kenn lu dul waañu maam moon mu am mbaaxam googu tabam googu yaatoom googu kon nun danoo wax nun seeni doom seeni jabar lañ bu mu ñëwee fekk ak yéen fii dana leen ko bégee lool rawatina nag bis bi ñu am wàlluwuñ ci sedd sëñ Abdoul Aziz ci rek delloo war ku njukkal ci taxawaay bi mu nekkoon wax naa léegi ca Dakar sëriñ Pape Malick mu ngi toog dañu ko sëriñ Abdoul Aziz bëri na ko jëflanteem ak moom xamoo ko da nga gis rek jëmm ñuy def waaye ñi xam dëgg-dëgg ban chaxsiya la woon mooy ñi mu àndoon doon tukki ak ñi mu àndoon doon jëflanteeg waa adduna bi man leen lii mu sos dafa am ñu foog ni xadratul jumaat des koo war di créer rek lu dul xanaa ci jumaa ja nga xamante ni fa la doone woon dëgg la géewu yàlla la géewu kaw asamaan la malaayika yi ñoo daan daje di def seen teewaay ngir sàbbal bu ñuy sàbbal seen borom ba mu yegg ci yàlla ci boppam nangul leen li mu doon ci li ñu doon ci moom njaboot boo ko amee ci sa kër mu mel na mu war a mel bët ba nga koy xool dana wuteeg bët ba ngay xool kala faale wul ci biir kër malaaka yooyu la yàlla di wax na naa ah ñoom kat yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim wa yuminuuna bihi ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم لولا مسيد جنوم تيوا يبنو دون تيو دي ديف سين جيو يوي مو اندي جيو يي نيتو يالا يدي جيو كي سين اتي مو نيك اي حلقات الذكر ني دي كو روي تي نيوم باسكو اكتيفيتي كاو اسمان سيرين عبد العزيز خي خي ني ا بوما سنيون تي سينيغال ci dëkk bu mu mën a doon danaa fa am mbalaan mu nuy lal ay njabooti yàlla ci ëttam yi mu am mu di ëtti kaw suuf yi ndax ni mu amee ëtti kaw asamaan noonu la amee ëtti kaw suuf danaa fa def boo xamante ni danañ falal mbalaanum un kilomètre loolu la njëkk wax man leen man dama ànd ak moom gunge ko dëkk bu ñuy wax moom la ñuy wax Serendib ca Asie ñu dem conférence dañ ko fa woowoon mu daje moo Baye Moustapha Cissé bu biir ñoo àndandoo keroog man par hasard laa njëkk a àndeek moom ci bis ndax tukki ba ñetti fan la ko ñetti fan ya bi ñu dikkee ma ne ko papa mënuloo fi jóge ak ni nga toll ak sa âge ak sa wéridi nga ni dangay tukki sël ci avion yi nga xamante ni dangay ngay wàcc tukki ñetti fan kenn mënu koo toog ci mag yaa ngi yore saak yore mantu bàyyil ma jëlal la ndax Moustapha Sy bu Louga moo waroon a ànd ak moom jóge Washington yàlla def mu bloqué wu Washington ma dem seeti daawa islamiya ndax ñoo ko doon yóbbu man leen sëriñ bi mënul dem sën ndax mag la kilifa te am na loo xamante ni mënu koo defal boppam bu ca yeggee dañ ko koy defal ñu ne ma waaw loo bëgg ma ni man mii Moustapha laa tudd comme Moustapha si jox leen ma billet ma jël sama passeport ànd ak moom pour téyel ko loolaa indi sama ànd ak moom gannaaw ga sax ci tukki yeneen yi ñu dem ba France

ñooy jiitu fukki ci gannaaw ñoom sëriñ bi nekk ci digg bi ak ñoom docteur Bachir ak mbokkam yooyu seq jamiya daawa islamiya bi ñu yegsee ba foofu mu def conférence ba wala réunion ba te na mu war ànd ak tonton Moustapha Cissé ba nu fa jógee ñu war a ñibbi si mu ni moom mënul doxati yoonu retour bi day jàdd France toog fa ñaari fan xoolaale docteur doog a ñibbi si te foofa la tombé jeunesse chrétienne ñuy def première daje yi xalé chrétien yi di def ci France bab bi di jóge ci Rome ñeu di ko journée mondiale de la jeunesse chrétienne JMJ Serigne Abdou gis na mu suivre journée yooyu ci ni ma ko doon suivre ma wax fële man leen ku mënoon di xool ak a saytu doxinu mbir ak doxin wa bu fekkee ni itteel na ko mu jël ca intérêt ba mu wóor mën na koo jariñ ci péncam mën na koo jariñ ci ay mbokkam ba mu ñëwee rek ci la commencé lam ñu njëkk a mooy rassemblement des jeunesses tijaan moo ko inspiré mooy li ngeen gis te Tiwaawan Ashura ndaw yi di jógee di ko fa fekk ñu jógee fa mu inspiré daje ba ñuy def ca place de l'Obélisque xale ya ko doon def man nii la leen booleel pour naa leen wax yoonu doxalinu lu mel noonu ku ko bëgg a def parce que xam na ni njabootu ndaw ku leen amee ci pénc yaa ngi yore sa ëllëgu pénc njabootu ndaw ku leen toskaral ci pénc yaa ngi toskaral sa pénc ma ne ci la indee inspiration boobu samp ko wëlbatiku nag ni xale ya ca stade ba ni leen ñëw leen ngeen daje ngeen lalal Seydina Cheikh radiallahu anhu mbalaanum téeméeri kilomètre ak ñaar fu téeméeri mètre ak ñaar fu mbalaan mooma tey moom la ñu doon def nii man leen am na ñu foog ni stade boobu man leen stade ba dañ fa doon foog waaye tey xaqiqa yàlla wàcc si na fa te sëñ Abdoul Aziz moo ko fa def comme barabu fowukaay la woon te yàlla moo wax ni ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura ma ni kon lal fa balaanum wasifa mbooloom yonent bi daje fa di jàng salaatul fatiha di jàng la ilaha illallah di jàng allah allah di jàng eh, l'istigfar defe naa sëñ Abdoul Aziz yàqul mbooloo ko loolu moo nekkoon tees man ne liggéey boobu ku ko def nag ngir bëgg kam-kamal sa njaboot njaboot yi ndaw yi mu xam loo lan mooy seen wartif parce que xam-xam ba xam jot xam sa wartif moo gën a doon farata ji yow réer ba réer jeex réere sa bopp moo gën a kawe ci réer yi maara day taal yi suñu ci lii la nekkoon di suuxat njaboot yi di leen suuxat leeru tariqa جم لول المدرسة الصوفية جمكو كي لغا خمنتني موموي أصولية أكفاني كوتين نغا خمنتني لموخون الفناء في خدمة الحضرة دون رؤيتها التمسك بالكتاب والسنة لولا مسنك إتم بريك ديكو تال تي جابوت داوي ньо хам сен бо хам ли ньо ам бэйрэч сэрни абдуразиев looloo indi mu taxawal loola ca stade ba waaye stade ba fowukaay doom taxul nit ña daje fa man sunna sunnatan xasana da nga cay am njariñ da nga cay wàll moom nag loolu la defoon yal nañu ko yàlla fay nangu gi mu nangu Ahmed Bachir wax ko léegi nangu kilifteef suñu Abdoul Aziz daf daan wax ni man Abdoul ku ma mag ku ne yaay kilifa ku ma mag ku ne bëgg naa nga gën ma sëriñ Abdoulaye sëriñ Cheikh sëriñ Moustapha sëriñ Mansour ñoom day xam naa damay def ak El Hadj Abdoulaye bi Dabba moo ko daan waxal boppam ñoom day xam naa namay def ba ànd ak ñoom waaye doom bu sëriñ Cheikh Diouf doom bu sëriñ Moustapha Diouf doom bu sëriñ Mansour Diouf doom bu alxaaji Abdul Aziz Diop ñoom ñoo xam nañuy def ba ànd ak ami sañ-sañ ci diine te yënguwul moo kooku may Ababacar ak dogal ami zañ zañ ci diine te yënguwul ma. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom. kooku mooy Ababacar. mbër mi kenn tëggaaliwul ki mu doon moom. lëkkaalewul ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man bay na ki mu doon kooku mooy Ababacar xalifa man bay na al ki mu doon kooku mooy Ababacar dongu Maodo doon di Cheikh Bakar daal du li wàcce wu ko de déedéet jàngal xoolal wàcce wu ko de dem ci yoon bi wàccu ko xam lu ngay wàcc xërital sa ubbi sa xol yéena lu baax liggéey yor say njaboot jàppale koo mën a jàpp mooy wàcc sa bàkka te gis nga boo demee màkk tey tey tey tey nii màkkatal mu karam karama tey nga dem fa dangay xool foofa nit ñi ni ñu taxawoo ci Arafat dangay gis ay milliards milliards si ay lekk ñi ko jox te doo xam ñi ko joxe kon berdil ay nit li ci nekk dafa am solo li jumaa di foor foor li jàkk foor foor li def lépp mais jox nit moo gën a for juma gën a for jàkka ñu lekk kon bu ñu amee lu ñu mën a am jox ko nit ñu lekk ko ñun duñ ci gis seen bopp dañuy xool nit ñi ñëw di la ko lekkal foo te nit ki bu lekkee ci loo ko jox mu jàpp ci rukkoo ci yàlla mën na la jégal jégal ko ana soppey alxaji Habib si bu nu sàggan ci Babacar ana soppey Serigne Mansour bu nu sàggan ci Babacar bu nu sàggan ci Babacar déglu leen di ko seetaan. Sophie. lépp fii lay leeree. liggéey rek a wóor. fii donc rek fii kese ci El Vision fii lay tàngee fii lay xoyom xoyomee du feneen maa ko wax. nit ku baax xam nga lu mu war a ak salaat du benn ku weddi bi euh, di def lu bari di wax lu néew. réew looloo koy doxal réew wax ju bari di ko doxal mais jëf moo koy doxal. soo bëggee lu leer nanga ko jàpp lépp fii lay leere xam naa ni ñii doomi réew mi lañ ñun ñëpp ñu ànd doo dem ca kaw laay lëla laaw lu ne fa nga kenn du ko jeex yéen lay béggee nit ku baax daa waram gis-gis ba mel ni ñoom yéen amuleen moroomee. leen ñaanal gudd fan ak wér. te xam nga àdduna moom. da nga jël yàlla def ko sa entraîneur nga jël muñ def ko sa entraînement. yàlla comme coach ku lay gañe suufa ñu dàq muñ foofu tuuma ñu mujjee toog maa muñ te ñàkk waaye wala dugg bett.